ngi fi ci bitigu sopp da bax fi ci station keur Massar jàkkaarloog Ibrahima mi nga xamantene day jaay ay pochette yu machallah ak ay dalu rafet rafet nga gis client yi di dugg ko genn ni Ibrahima ñi ngi lay jaajeufal ñi ngi dolli ziar bu baax ma lay jaajeufal yow tamit di nuyu mbokkum julit yëpp di leen wax alaykum wa rahmatullahi taala barakaatu. waaye ngi ci bitigu sopp da bax euh, tay naka ngeen def ak client yi ak euh, korité bi ñu jëm. korité bi waaw ñi ngi ci ñi ngi ci sante bu baaxa baaxa baax ndax client yaangi ñew nank nank bu baaxa baax mais donte ne ñëpp génn gu ñu en masse ndax réew mi mu toll moom ñëpp xam nañ ne réew mi fu mu toll waaye nag eh, ñi ngi ci sant yàlla bu baax daal ndax client yaa ngi ñëw mais xam naa ne fekk ci kanam dinañ gën a ñëw incha allah pour ñëw pour jëndal si xale yi jëndaaleel seen bopp ndax fii moom mooy boutique sopp da baax dañuy jaay yu yomb waaw dañuy jaay ay qualité tamit yu baax a baax a baax daal di qualité waaw daal daal yomb am na ay daal xale aussi am na ay daal mag am na ay saagu mag am na ay saagu xale waaw yooyu daal ku fi ñëw daal incha allah moom di nga xéwal bu neexee yàlla. ci loolu la fas ne dugg ak yow tey nga gis ne daal yi yaa ngi nii euh, da daal yi nii mbaa cherul. waaw parce que yii nii yii ñi ngi ko doon jaayee 9000. léegi ñu ngi koy wanteer à 5000 francs ba 6000 francs léegi fi ñëw ngay am dàll sañse boo amee 10 000 francs da ngay sañse da ngay am dàll da ngay am pochette ku ci am 15000 francs da ngay am dàll da am pochette fii moom mooy boutique biir boutique sopp da baax moom boo fi ñëwee soo bëggul sañse ci yow la des quoi fii moom boutique bi mi ngi fii pour ñëpp am na ay dàll góor am na ay jigéen ah, ngeen di jaayaale ay dàll yu góor aussi. am na ay dàll yu góor moo nekk ci sama ginnaaw boo xoolee ci sama ginnaaw am na ay dàll yu góor yu fa rafet dàll tuut tànk rafet mi ngi foofu prix bi c'est ndax cherul fan la tàmbalee ak fan la yem. waaw prix bi am nay jar 8000 am nay jar 7000 am nay jar 6000 ba 5000 la yem waaw am na ay sacoche yu 5000 am na ay sacoche yu 6000 am na ay sacoche yu 7000. waaw yooyu daal leen jaay parce que ñu jaay tamit qualité la bu ñu jaay qualité ba lor tamit askan bi parce que xam nañ ne réew mi dafa métti moo tax ñu wàññi lépp. ba ci eh, saag aussi maa ngi koy gis mu nekk ay saak yoo xamante ne nii saak yu mucc ayib la loo mu mën wax ci saag yi. waaw saag yi moom ay yu baax la ay saag yu turki la ay la eh, Euh, ba fi sanc bañ fi sancee ba léegi ñu ngi jaay ay clients yoo xam ne macha allah mosuñu soo am déception ndax client gi ñu fi jaay ñëpp dañuy ñëw fii di jëndaat parce que dañuy jaay saag am qualité saag yi baax la ñuy jaay saag yi nga xam ne saag yi turki la saag yi dëgër moom la ñuy jaay. Euh, tey Sénégal am na président bi yes muy Bassirou Diomaye fay euh, tey noo ko dundee. ak kontante kontante bu baax a baax ndax ñun patriotes yi. du ma wax sax ñun patriote waaye dama naan ñun sénégalais yi am nañu président bu mat président am nañ président boo xam ne ni président bu gën ci ñun la te bu ñu yàqamti li ma waxoon rek laay waxaat ne sama mbokk seen yëpp jógaat takku ànd ak moom liggéey te xam ne dëkk bi bëgg mu liggéey bëgg mu jub rek moo tax ñu fal ko te moom incha allah mi ci tànk yooyu ndax gis nañ gouvernement bu bees bu mu fal kon loolu dañ ciy am kontaan bu baax a baax wa dëgg yàlla Bassirou Diomaye Faye dañ koy ñaanal li mu sumb yàlla na mu yegg ceeg jàmm ak salaam tey téeméeri fan yi mu war a njëkk def ci bopp réew mi tey bu doon soppi daar daar lan lay soppi. bu doon soppi daar daar ci li ma ci ci li ma njëkk a sedd ci réew mi mooy tey Sénégal boo ne 17 millions d' habitants tey tey boo jëlee 16 millions d' habitants yëpp li ñu mooy dund bi métti na. Dundu bi metti na rek rek lañ lay wax waye dundu bi buñ ci mëne dimbali ak nit ñi ñu mën ci dimbali ak nit ñi ndax dundu bi cher na trop après buñu paré ci dundu bi nak ñu dogo xol walum paj meeg wàllum napp geeg jëm ak ak agriculteur beek yoyu ñu mën ci dimbali bu baax baax baax baax fu nekk ni dal luy soppite dar dar dar dar moy dundu bi ration alimentaire bi waaw askan soxla nañ ko torop parce que tay fu nekk ni ñepp loolu lañ wax rew mi metti na dundu bi dafa cher kon président jomay ñi ngi koy wax lu mën ci mu mën ci jappalé ñu mu gëna gaawé rek inshallah allah mu dimbali ñu wacce dundu bi bu baax tey lan ngay conseiller ndaw ñi jeunesse bi. jeunesse bi li ma leen di conseiller mooy jaratul jël gaal. jaratul jël ay yoonu micro nañu na ñu toog gëm suñu bopp ñu liggéey te xam ne ñun ñoo ko doon ñaan yàlla suñu borom indil nañu ko waa tey li yëpp ñooko ko doon ànd ak di xeex Ousmane Sonko te yàlla suñu borom indi na ko fi li may wax sama mbokk mboolem jeunesse yi mooy nañu gëm seen bopp te liggéey waaw góor nag pour man waroo xeeb benn liggéey liggéey bu ñëw rek yow war ngaa mën a liggéey daan sa doole te bañ ku la yab ak bañ a góor mom liggey bu nek mën nga ko wara a war a mën a ñu la da nga ñak fayda ak da nga ak ak da nga yambar lolu mom war nañ ko baye xel bu baaxa baax kep koy góor war nga baye xel lolu bu baaxa baax. sa kaddu gu mujj lan la. sama kaddu gu ju moy xana di contente am contente bu baax di leen ñaanal yalla yalla sunu borom eh, yëkëti liggey bi ba ci kaw. wa dem nek télévision bu maga maga mag di mag di tamit sunu client yi di nuyuwaat mbokki Kër Massar yëpp wa di leen nuyuwaat di leen santat di leen gërëm bu baaxa baaxa baaxa baax lolu dal lay am lu may jaajëfal di wat ñep di assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ma ngi leen di jaajëfal delloo ziar bu tay nak ñu ngi fi ci Kër Massar bi tugu Sopp da bax euh, ñu gis ne amna ay pochette ya yànja dal ya yu ma sha allah euh, naka ngeen dundé korité bi ak veyu korité bi. ah sa gam maké door wa waat xam nañu dëkk bi neexut waye nampes ñu ngi ci jaay yàlla ñu ngi sant yàlla bu bax dal wa dal xalé yi voilà accessoire xalé ak lepp nga dox mom dalu mag ngeen jaay wala dalu xale wala lepp ngeen boole diko jaay. lepp lañuy boole jaay dañuy jaay dalu xale dalu mag sac sacoche pochette dra lepp lu jëm ci walum accessoire lañ koy jaay. ndax prix abordable na. waaw abordable yomba dee nag pour ñëpp ñep ñep a si mën a bokk waaw. saag nak euh, prix bi fan la déparé. saag yi son départ ñu ngi déparé ci 5000 jëm kaw prix abordable dañuy wante de même que dalé tamit amna 5000 jëm kaw. promotion daal lañ def total si événement bi. voilà dañuy def promotion événement sans événement tamit parfois dañuy def promo. parce que daal li ngay gis nii rek yu xew yi ñu doon jaay 9000 bu dul événement instant ñu ngi koy promo à 5000 francs voilà. Euh, diggante korité daaw ak korité ren ban moo ci ëpp client. ah bu ren bi de alhamdulilah waaw doole sant yàlla bu baax. comme da rek vu que da moom da fekkone ñu doon door a installé presque ay 5 mois yoy mais sans yi def nañ fi benn durée bu yàgg gaay yi xam nañ place bi xam nañ qualité li ñuy jaay motax ñom ñoom fi lañ taamu fi lañ préférer waaw. Sénégal amna président bu bees muy Bassirou Diomaye Faye noo ko dundee. rek te xam ne ñun séeréer ñom mom dëkk bi Faye Birame Penda Waagaan rek diko ko mu yokk ca kanam li nga xamantene moy mooy te ñi nga xamante ne fal ko moom lañ bëgg yalla ooy fal ko bobu matlé ko inshallah tay euh, euh téeméeri fan yi mu war a def ci bopp réew mi bu doon soppi daar daar lan lay soppi selon toi. bari na wàññi maanaam wàllum dundin ji nit ñi mën a am liggéey sama genre yi nga xam ne jeunes yi bëgg nañ liggéey ñu mën am liggéey lekk gi ñu wàññi ko dundin wi ba ñëpp mën ci gis seen bopp daal voilà dëkkuwaay ak lépp. xam nga loolu bu ko defee tey jii nañu facilité la tâche ba pare génne ñu France tax ñu gën a mën a nekk à l'aise ba pare monnaie bi tamit soxla nañ ko ci bu baax. macha allah euh, tey kon lan ngay digal ndaw yi jeunesse bi. jeunesse bi daal maa ngi leen di digal ñu gëm seen bopp liggéey xam ne liggéey mooy maye gëm seen bopp liggéey jàpp ci yàlla voilà lool daal laa leen di digal. sa kàddu gu mujj lan la. ah di leen sant di leen gërëm te di leen woo yéen ñëpp si boutique sopp na bi ngeen ñëw mu jaay leen lu doy waar ay saak ay daal ay sacoche lu amul fenn lépp lu ngeen bëgg rek moom moo koy jaay fii Kër Massar qualité yu bokkut ak yeneen qualité yi nag ndax lu mu la jaay rek di nga ci am contentement bu baax. ñu ngi lay jaajëfal. ok merci beaucoup. voilà tey nag ñu ngi fii ci station Kër ñëw fii ci Aliou borom Daalu Ngaay Aliou ñu ngi lay jaajëfal. waaw ñu ngi lay ziar bu baax a baax a baax di la jox sa wàccuwaay. Mm-hmm.